à vue yéen a kaay gi nee na ay millions ngi millions ngi millions ngi doomu aadama ñoo xam ne nag dañuy jékki-jékki duuduñu mën a gisati te nag la nga xam ne moo koy waral lu ñàkk fayda lay doon maanaam ñenn ci askan wi ñoom seen bopp ñoo deful yitte dara maanaam ci seen gis-gis moo tax ay millions ngi doomu aadama ñoo am ay jafe-jafe bët yéen a kaay gi nee na ci dëndu senegal jamono ji am na lu toll ci cinquante mille cas cataracte ñoo xam ne ñoo ngi xaara ngir nag ñu daal leen di opérer faj leen yéen a kaay gi nee na at toll si ñaar fukk ak juróom benn junni cay ni danañoo amee jàngoro ji nga xam ne mooy cataracte kaay gi ne na neexul ba neexul waaye ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafe bët ci réewum Sénégal bëri na gi ne enquête xëy duñu xibaar naan ñu kuréel gii di doy na ñoom nag ni ki démb jano nañu ak tas ko du xabaar yi li ñuy sàkk mooy Guy Marius ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi këram yéen kaay gi de la témoin ak réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu vendredi de tous les dangers ni ki suba ci àjjuma ji boobu muy tuulee maanaam Ndakaaru njaay jël jóob dina pëcc xoo dina bokk na ci opposition bi bi ñoo fas yéene wàcc ci mbedd naqarlu bu baax a baax violence fitna bi nga xam ne moom la ñuy teg askan wi ba pare nag di sàkk Guy Marius Sagna ñu daal di koy bàyyi yéene kaay gi di las mu xëy di ñu xibaar naan ñu projet Guy Marius Sagna tey jii la yéene kaay gi nee na parquet bi nag moom ñaari ati kaso la sàkk woon juróom benn weer mu daal koy tëdd ba pare ñu daal koy amande lu toll ci mille francs yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi niki la ñu doon def seen lancement levée de fonds ñoom Malick Gakou ak nag Ousmane Sonko nan la ñuy def ba lijjanti koppar koppar moom lañ doon waxtaanee ni ki démb ñoom nag jamono ji daal mboolem activité yi nga xam ne bëgg nañu ko def ci élection locale yi dañoo bëgg daal askan wi ñoom ñëpp daal di si participer dugal ci seen xaalis yéen gi di libération nee na maire bu mbaaw daan nay fekki coalition yeewi askan wi yéen kaay di vox populi nee nag APR ñoom nag génn nañu ab communiqué maanaam di soutenir di jàppale Doudou ci coow li nga xam ne moo doxoon digganteem ak ne moom la ñu dëgmal allié yi Macky Sall yi am na ñoo xam ne jamono ji daal maanaam dafa mel ni dañ leen a yeew mel na lu saañ seen gémmiñ ji maanaam nag jamono ji ñi ànd ak makki daal moo xam waa réew mi la wala nag waa parti socialiste wala waa AFP jamono ji waxuñu dara dañoo silence noppi déggoo leen sax maanaam ñu naan waaw ville bi département bi dañu ko bëgg waaw ñing ñing patati patata yéen kaay gi ne na daal en tout cas waa réew ak waa parti socialiste ak waa jamono ji ñoom dañ ne pat noppi la ñu def mut ba moto gi du l'observateur nee na yi caisse des dépôts et consignation jamono ji lu toll ci cent vingt millions ci caution jamono ji dugalagun nañ ko fa waaye nag Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal ñoom ba léegi joxooguñ seen caution yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na njiitu réew di président Macky Sall waxoon dafay def ab tournée économique sa diwaanu Ziguinchor waaye nag soo muytuwuleeg coow li nga xam na xale yi nga xam ne bëri nañu loola bis bu seet lu toll si ñetti téeméeri xale yoo xam ne danañu amee grippe ñu yóbbu leen sa hôpital Albert Royer am na sax ay cas grave fa yéene kaay gi di enquête ñëw ci grawale ka musiba ma bu kumba gi nga xam ne moo xewoon ca clinique de la Madeleine yéene kaay gi dikk na ci ak ay révélation yu doy waar doy waar ak lan moo tax directeur ba ñu daal di koy def ab contrôle judiciaire yéene kaay gi de la témoin ginnaaw nag Fuuta tampi nee na Washington ndax nee na ambassade bu Sénégal bi nga xam ne moo nekk Washington jamono ji daal maanaam pëccëxoo gi nga xam ne moo fa nekk jégg na dayoo pagaay dëggantaan moo fa am ndax ñi nga xam ne maanaam ay diplomate de carrière lañ nekkoon ci ambassade bu Sénégal Washington dañu leen fay jëlee ndànk-ndànk ba pare nag di dugal ñoo xam ne wàllum politique moo tax maanaam ñu bokk APR wala ñu bokk benn bokk yaakaar wala nag ay mbokk daal maanaam kii sama mbokk la pagaay dëggantaan moo am ci ambassade bu Sénégal bi nga xam ne moo nekk Washington moo tax gaa yi nga xam ne ay diplomate de carrière lañ nee nañu Washington tampi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Sambo nee na France war naa nag am reconnaissance reconnaissance ci nag ñi nga xam ne ñooy africain yi ndax africain yi sacrifié nañ seen bopp maanaam jàppale France bëri na nag ay africain yoo xam ne dee nañu ngir nga xam ma ngi dalal ay yu bàyyi ko ci dëndu Afrique ñuy wane yoo xam ne almaañ yi ñoo leen rey na yi nga xam ne lu ne ko yi moo ne day surtout ña nga xam ne ñoo dee surtout ña dee jamono ji tey dundu nekk ci Afrique ñu am ab visa sax dugg ci France jafe na leen loola yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy ci rentrée scolaire bi journal bi nee na en tout cas li am ba de sal soo muy tuulee nag maanaam mbir mi daal dina coow la yéen kaay gi di Libération xëy ci scandale bi nga xam ne moo xew ci diwaanu Sicap nee na Sicap dafa joxe benn terrain boo xam ne toll na ci trente et un mille mètres carrés ci diwaanu Louga ab représentant Mina Hôtel te sax moom Sicap xaarul sax li nga xam ne mooy signature